ndox moom ay kéemaanu yàlla la ajaratu mm. bu waree tuuru day tuuru bu waree wàcc day wàcc segam euh, fële ca euh, Tennessee nekk benn gox bu nekk foofu ca États-Unis la ñu mm. gis ndox mi yóbbu lu toll ak cent mille maison mm-hmm. ba ñu daal di leen di euh, génne fa nga xamante ne foofu la ñu dëkk mm-hmm. ngir wutal leen pexe je pense que ndox moom lu bàyyi Dakar rawatina ak Sénégal rawatina Dakar gi nga xamante ne maa ngi koy wax dafa nekk ci napp frais frais naka lañ ko mën a waxee ci phréatique mm-hmm. mais li gën mooy même bu fekkente ni ndox mi nga xamante ni moom moo fa ne dindeeguñ ko nañu leen yëkkati yóbbu leen ci ay abri provisoire mhm. ndax mhm. abri provisoire yooyu je pense que amoon na ba pare leneen li ma déployé tam man personnellement bokk na ci euh, suñu ministre de l' bi nga xamante ni euh, mhm. danga dem yow pour euh, peut-être jëli ay nouvelles sinistrés yi naka la ñuy dundee tue bien sapé en costume et tout et après tu de ne da ngay xuus ci ndox mi ak comment tu es habillé ñi mën nañ ko juger à la base c'était pas pour xuus ci ndox bi mm-hmm. population bi ñoo ko exiger à ce que mu xuus ci ndox bi parce que yaay mm-hmm. lu vidéo buy wane ni dafa doon dem beneen sens. il n'était pas préparé alors. non di di ko yuuxoo naan ko foog nga dem fële ci mbënd bi. Mhm. donc looloo tax mu waaxu dem ci mbënd bi xuus ci noonu. xam nga mhm. xale Kër Massar moom. voilà voilà yooyu noonu yëpp on pouvait on pouvait bel et bien mhm. l'éviter. Euh, par le biais de waajal sa bopp dañuy wax bolof euh, ñaari fay wax ajaratu naan xool deeku balaa ngaa lakkale. parce que nag bu ndox tuuroo. Euh, an mbaax dong moo ci des boo mënul rootiwaat c'est vraiment important à ce que nga xamante ni ñoom ñooy fanaan parce que nag nawet demagul fenn on est en août dalay leer ni ñetti taw yi wàcc fii ak septembre yeneen i taw yu gën a métti dina wàcc l'heure n'est plus au parler ou mm-hmm. à des réunions de crise ou et cetera dañu war a wàcc sur le terrain mm-hmm. jëf mm-hmm. temps bi ñu focaliser wu ci réunion yi bu ñu ko focaliser woon ci yónni ay auto motopompe un peu partout dans le Sénégal je pense que instant bi euh, romboon nañu fii euh, yàgg na métti na nag lool lool lool ñu massaw encore une fois mm. euh, sinistré yi di woo Sénégalais aussi c'est vrai qu'on est ñu ngi si mbas sénégalais yi nañu gën a jëmmal solidarité bi nga xamante ni moom moo amoon suñu biir ñi nga xamante ni seen kër yi ndox mi moom na ko ñàkkuñu ay mbokk yoo xam ne seen kër ndox mi moomagu ko mën nañu leen héberger en attendant vraiment que leur euh, situation euh, s'améliore ajara et puis am na am de civisme yoo xam ni mm-hmm. yenn sénégalais yaa ngi koy def ku ci mel ni par exemple Siteu Mbeur mm-hmm. moi j'ai vu mu jël seize motopompes mm-hmm. yóbbu waaw yóbbu ko ci goxam pour que mu ñu mën a évacuer ndox yeeg xam nga yooyu ay acte de solidarité la yoo xamee ni moom bu ko defee beneen euh, célébrité ci ci ci koñam def ko wala keneen ak keneen je pense que ci xol la sax ki mhm. ko mën a génne di ko may doomu aadama mhm. di ci wër ngërëmu yàlla koo kenn mënu ko fay mhm. kon si tamoom dafa wane ne bëre bi mu doon bëre ak li mu doon wut euh, la mu ca denc moom génneen na ci pour sénégalais bi te loolu mooy solution bi ñun ñii ñëpp amul ku ci mën a wax ne bésu taw jotul ndox mi de indil la ay problème tey yàlla ji dimbali la nga toog ci kër léegi da ngay toog ci kër gu baax sax ndox mi di fàq di seet mm-hmm. nañu dimbali ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci biti mbir mi du ay wax du ay wax ci tele nii rek pare ci sànni ay jëf du ay explication ba pare pare ci sànni ni ngay veillé ci benn mbir ne da moom nga gën moom nga bëgg ci ngay veillé ci ñii nekk ci mm-hmm. biti doon ay néew di doon mënuñu amuñu da ngay gis kër guy baax kiy jënd plâtre kiy yor ciment téeméer di taf day dem ba du mën bëgg a tëdd dankaloo ci benn lal man dund naa ko mhm. man bés bi may njëkk a ne dama am xam-xam barki Seydina dama inoon inondé ak sunu waa kër yëpp ba mu ñëw ba ci sama loos ci laa njëkk taxawee ne yàlla su fekkee yow rek yaay yàlla na taw bi arrêté ndax ñun ñu ngi fees te bu yàggee mën nañu dégg ci laa njëkk sentir ne man damay dogu muy am moo tax ndox mii bi nga ci waxee mu daaneel ma mhm. ndax man ci ndox la sama pouvoir xam-xam njëkk a ci laa njëkk a dogoo tudd Ahmadou Bamba xadim rasul doomam ja sëriñ Fàllu ne ko yaane yaay borom mu am mu am dootul am du am baabadan garas bàyyi mbeen nee nañ ma dangaa mën ci ndox mi dara tey ma wax la loo mës ta gis mbàkke mu ne ma ne ko na ndox mi arrêté ci ni muy gën a gaaw nag ay seconde moo dese ñun ñu sond barki Seydina Mohamed maa ngi lay wax lu daw yaram tax ndox mi ne teg taw bi arrêté jour boobu laa njëkk xam ne man mii am naa xam-xam ca yàlla su ma neexee imposé ko Sénégalais yi dugg génn fëgg sama dënn ndax boobu inondé naa sama yaay mu ngi inondé ay doomam taxaw sunu dëkkandoo moo nu fat moo tax barki dem ba sunu rakk bu góor bi takk jabar dañu ne tuuf jël cër bi jébbal ko ko ndax ba nuy lab nag ñoo jël seen néeg ba ubbi woon ko ñëw jox ñu ko muy al Mabé Diagne mi nga xam ne lu maam Serigne Saliou la ko jox ak maam Diarra Bousso ma ne Touba moo ne papa mu ne ko am na ko dëkkandoo lañ ñoom ajaratu dama booy mii boobu dégguma ajaratu du ma tuus mm. ñu ngi nii de noon te metti na gàddu leen ñoom seen bagage yi na dem na man daa yàqu waaye papa ubbil néeg bee nga tëj lu yaas amagu fa nga dugal leen ci biir ñu toog fa ba bët ñu dankuloo ak sama yaay moo tax dama naan su ma fekkee douche bi doonoon benn douche ma def ko cinq salle de bain dagat na ndax loolu laa wut se woon ba ma ko fekkee muy benn douche ñu ñëpp ñu toogandoo ca amul couverture kenn tëju ko tey def naa ko ay sens teg naa ay robinet teg naa fa ay siège barki Serigne Bamba maay jigéen ju mën góor. Mm. ñu demal Tëngéej. man mm-hmm. wax. Mm. nan ndox mi nag. Mm. Adja moom bu aaloo rek. Mm-hmm. Eh, jàpp leen ni yaram wi tàng ah, euh, wax ci ndox mi te te Mouhamed surtout. ki ko dundul. Euh, mënu koo nettali ki ko dundul rek a ko mën a wax ba mu ànd ak émotion ndax ku dee gaajaratu ni mu. Euh, waxee mm-hmm. ni xam ni xolam fi mu yegg xëy na xolu sinistre yi nga xamante ni ñoo nekk ci banlieue bi ñoom itam seen xol foofu la yegg média yi aussi nañu gën a engagé wu sur la cause des inondations mhm. nañ ci def ay édition spéciale parce que nag premier jour bi gis nañu euh, Sen engagement am par rapport ak li nga xamante ni moom moo di la cause des euh, sinistrés nañu gën a alerter nañu gën a euh, ñaan comme fi mu ne ñun ñoo moom suñu dëkk c'est l'argent du contribuable mais ñun ñooy dellu di ñaan ngir ñu dimbali ñu bu bu jëree ñaan nañu ñaan ñu dimbali ñu vraiment ndox mi dégagé donte mhm. ndox kenn mënulu ko dara ay ca mhm. jërëjëf incroyable na moom. waaw ça moom c'est incroyable.